وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون wa in adri la'allahu fitnatun lakum wa mataa'un ilaa hiin qul rabbi ihkum bil haqq wa rabbuna ar-rahmaanul musta'aanu alaa maa tasifuun sadaqallahul aziim de moom de moom de teg mbàkk yi kenn du ko ci. kenn du ci sant dara. loolu mooy yëngu mbënd mu nawet bi kenn du ci sant dara. alhamdulilah. sant lool sant rek sant rek war kenn di ñaan ndollam di wéy di wéy rek. rajo bi incha allah. aw leen kumba aw leen kumba aw leen kumba. amiin. amiin. waaw ci maam Diarra yow ak kanam bu njëkk la. kanam bu njëkk la waaw. ah moom day defaral de yow maam Diarra Dieng. maam Diarra Dieng euh, waaw doomu Cheikh Abdou Dieng moom sëñ Malick Dieng. ah doomu Cheikh Abdou ah moom mooy sant yow xam nga sant rek sant da nga xam koy defee rek sant nañu suba. waaw walaay walaay ak yéen ñu koy sant ñu koy sant la daal loolu loolu xam jërëjëf ok jërëjëf. waaye nag bu ok jërëjëf Mbacke ok jërëjëf jërëjëf ñu ok ñaanal ñu baax rek. waaw suñu yéene day wax dëgg yàlla moom moom ko lool ñaanal ñu baax. waaw